ok alhamdulilahi rabilalamin wa sala allahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñuy wërsëgalaat ñu daje ci weeru mag wi di chahru ramadan ñi war a ñëw daje ci néegam di fas yéene jàng la nga xam ne muy ab téeréem ci itamit doomu aadama bi na xam ne dunduk àddunaam amu ci lu ci gën a barkeel jamono jami toog di jàng diiney boroomam subhanahu wa taala amul yenn jéego yooyu yëkkati sa tànk di ca jëm ci lu gën a tedd sàkku ji xam la yàlla wàcc ci ay jaamam loolu tax rasul sallallahu alayhi wasallam daan ñu ci bégale sax ni nit ki fam jóge këram di jéego jëm ca jataayu xam-xam ya mboolem malaaka yi ñu romb ci yoon bi dañuy wàcce seeni laaf ngir màggal ko loole kon mbokk nekk lu yiw su dee ne nag dafa dugg ci biir weeru koor day nekk yiw woo xam ne day dugg ci biir yiw ñu ngi nekkoon ci saar wu mag di suratu nisa nga xam ne saar la boo xam ne day ñëw ngir xettali jigéen ñi ca noot ya nga xam ne ak ceddo ga da leen caa nootoon waaye gannaaw ba it laa yi leen biir ñoom seen bopp it ci doxalin woo xam ne suñ ko doxalee rawatina seeni borom kër jàmm rek moom mooy am ci kër ga loolu kon biñ koy jàng ba yegg si sunu bind bu mujj insha allah nekkoon suñ fukkeelu bund ak juróom ci saaru màgg wawe ngi ñaan borom bi nga subhanahu wa taala mi nga xam ne mooy yéwénal yal na yàlla yéwénal suñuy kër yéwénal suñuy société te dëppale ko ak ngërëmam kon incha allah ñu ngi war a jël tey aaya 171 bi ci suratu nisa suñu borom jalla wa ala di waxee ni ya ahlal kitab la taxulu fi diinikum incha allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها وكلمته ألقاها مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا بارك الله فيك سني بروم سبحانه وتعالى مني بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب أيني جتون تيري laa taxulu fi diinikum bu leen jéggi dayoo ci seen diine wala taqulu ala allahi illa alxaq bu leen wax ci yàlla lu dul dëgg kese innama almasiixu isa bnu maryam rasulullah ki kii di isa yonent yàlla la wa kalimatuhu alqaaha ila maryam ak kàddoom la gu mu sànni ca maryaama wa ruuxum minhu ak ruux goo xam ne ma nga bawoo ca borom ba fa aminu billahi wa rusuli ay waay gëm leen yàlla gëm ay yonentam wala taqulu salaasa bu leen nekk di wax ne ñetti yàlla la intahu xayrun lakum bàyyi leen wax jooju loolu moo gën ñeel leen innama allahu ilahun waxid yàlla day benn yàlla kese la subhanahu an yakuna lahu walad sell ñeel na ko ci muy am doom lahu ma fi samawati wa ma fi l ard ñeel na ko mboolem lu nekk ci kaw asamaan yi ak lépp lu nekk ci kaw suuf wa kafa billahi wakila doy na ci yàlla rek muy koo xam ne mooy nekk di saytu lépp di wattu lépp jalla wa ala lan yastankifa almasix an yakuna abdan lillah du jomb mukk kii di isa ci muy nekk jaamub yàlla wala almalaikatu almuqarrabun malaaka ya jege yañ jegeel suñu borom it duñu jomb mukk di nekk ay jaami yàlla wa man yastankif an ibadatihi koo xam ne nii jomb na ci jaamu boroomam wa yastakbir rëy rëylu na ci jaamu boroomam fa sa yaxshuruhum ilayhi jamia xel sa ne leen a dajale jëme ci moom mboole seen naam mbokk suñu boroom suñ téere bi mi ngi ciy jaar di woo ahlul kitaab ca loolee bu koy wax jubluwaay bi mooy ñun ñu moytu lépp lu yàlla doon tere ahlul kitaab te mooy chrétiens yi ak juif ya ñu xam ne ñun ñoo gën a yey ci moytu loolu ndax ñun la yàlla wàcc téere bi ci ñun lan la yàlla wax ak chrétiens yi ak juif ya mooy bu leen jéggi dayoo ci seen diine mbokk seytaani yal na yàlla musal ñu ci moom fa nga xam ne fa la jëkka daane la doomu aadama yi ca sax di leen ci daane la bi ila yawmi diin mooy jiggi dayoo ci seen diine seytaani bi yàlla wàccee sunu bay aadama mu ñëw ci kaw suuf am fi njaboot dem njaboot googu am njaboot dem ñooñu am njaboot dem ba ca dixième génération ba ca la seytaane pexe bu ne mu xool na muy def ba yóbbu nit ñi sawara amu ko ca la indee xalaat bu bon léegi jaare ci niti diine yi doon jàngale diine seytaane bu ñëwoon rek ne gaa yi kaay leen sujuutal jant bi dañuy lànk kaay leen sujuutal biddiw yi dañuy lànk waaye mu amoon jamono yi Nuux juróomi sëriñ yoo xam ne ñoo jiite woon gox ba mu dal Sénégal dana am na ku ne Dakar am na ku nekk Tamba am na ku nekk Saint-Louis am na ku nekk Kédougou ila axiri sëriñ yooyu ñi nga tuddoon Wadd Suwa Yaousa Yaouqa wa Nasr comme na ngeen ko jàng suratu Nuux mu daal di ñëw bi ñu faatoo mu feeñu kilifay dëkk ba te leen ah sëriñ si dey ñoo nekkoon làmp diine ji tey faatu nañu bu ñu fi jógee day diine ji dana na sax war nañoo ut lu ñu leen di fàttali ko daal di ne tee ñu leen defaloon ay istati waaye naa loolu de xalaat bu rafet la ñu dem fa wadd toogoon di waaraate mu defaral leen fa benn istati boo xam ne kenn xàmmiwu ko ak wadd dem ci dëkk suwa na ko noonu mi ngi noonu baba ñoom ñuy jeex loole ñooñu lii du lu rafet la awaay suñu sëriñ si ñu leen koy xoolee waay waaye gis nañu génération boobu fekke woon bañ koy def bañ fa jógee rek génération ba ca topp ñoom dañoo ñëw ne suñuy maam de ñii lañ doon jaamu commencé di leen jaamu ca di leen boole ak yàlla loolu ca la yàlla yónnee premier yonent mu yonent yàlla nuux mission moo nekkoon di leen xamal ni yàlla buñ koy jaamu duñ ko bokkaaleeg dara soxlawul intermédiaire loolu di mbir moo xam ni ah moo jëkk a am jéggi dayo googee xaw ma wax jéggi woon dayo ci seeni sëriñ mooy topp doomu aadama yi bañ mujj ñëw ci yahudi ak nasaraan yi ñoom it ñu jël seeni kilifay diine qaalat al yahud uzayru ibnullah qaalat al nasara al masih ibnullah yahudi yëkkati seeni sëriñ ba ne ay doomi yàlla lañu chrétiens yi yëkkati seeni sëriñ na ay doomi yàlla lañu a rasul sallallahu alayhi wa sallam moom bi ko yàlla yónnee yàlla jàngal ko aaya yi daan sax di wax nit ñi laa tatruuni kama atarati nasara ibnu maryam fa innama ana abd taqulu abdullahi wa rasul bu leen ma ma si yëkkati mukk ba yëkkati ma ni nasaraan yi muy chrétiens yi yëkkati isa man jaam rekk la day leen wax jaamu yàlla yonent yàlla loolu tax léegi bi ngeen di taaye wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul jaam la yonent la mi ngi noonu waaye malheureusement mbokk ba saxaaba ya demee ñi leen topp topp leen nit ñi it commencé jaar fa ahlul kitaab jaaroon te noonu la ko yonent bi alayhi salaam waxee la tatib la tattabi anna sunnan man kaana qablakum fu ahlul kitaab jaar da ngeen fa jaar gis ngeen xatta loo daxuloo juhra dabbin la daxaltumuuhu buñ demoon ca paxu bëtt dugg sax da ngeen ne ñu nit dañu wut paxi bëtt yu ñuy dugg ay ñu nit da ngay gis mbokk suñu nit yi diine jéggi nañ dayee ci ñoom te boo doon déglu rajo yeeg télévision yi da ngay gis Sénégal bokk nañ ñi ci jël coup ndax diine yu jëkk yi dañ daan jël ay nit di leen doomee la yàlla nan ñi ay doomi yàlla lañ waaye moromi yàlla lañ mais ñun yegg nañ suñ jamonoy tey kilifa diine yi lañ gën a kaweel ci yàlla jalla wa ala am déet wallahi ñu bëri ci nit ñi tey cër biñ dox seen kilifa diine biñ topp joxuñu ko yàlla jalla wa ala loolu nag mbokk mooy alxulu yeneen ci bàyyi sam nee na dara alago ñu jëkk ñu lu dul alxulu kon bu leen jéggi dayu seen diine bu leen waxal yàlla lu dul dëgg bu leen waxal yàlla lu dul dëgg amma doomu aadama yi tey ana ñaata lañ waxal moom la yàlla wax sëñ diw moom la yàlla wax sëñ diw mi ngi noonu maa ngi fàttaliku ay góor yoo xam ne wallaay ba ma toogee di leen déglu ñoom ñëpp faatu nañ tey ci biir suuf danaa leen fekki ak ñun ñëpp ñi wax ne sëñ diw day ba mu tappee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko tarbiyu di ko topp ba baa yonent bi ne ko man day li ma amoon lépp jox naa jox naa la ko mu ne ko ah waaw d'accord loolu de baax na waaye nag surga daggal la day borom tool daggal laa ko gën ah mu ne ko kon nañ dem ci yàlla ba mu ko yóbboo ba ci yàlla yàlla yëkkati caabi àjjana teg ci loxoom ne ko ku la neex dugalal ku la neex génneel loolu mi ngi noonu am na keneen koo xam ne nii ci rajo yeeg télévision yi kenn ni weddiwu ko mu ne ba mu demee ba topp yonente bi alayhi salaam dafa dem ba mujj yonente bi ne ko la ma yoroon day jox naa la ko léegi nag man sax jox naa la sa bopp far yaa ngi dégg mbokk yii da ngay gis mooy li ñuy wax ndax mbir mi day yem ca ña koy wax rek képp ku ko dégg di responsable ca weddi woo ko yàq ko wax yéen a yem looloo tax mbir mi di gën a avancé bu ñu waxee musiba un tey ëllëg ñu wax musiba dix ëllëg ñu wax musiba cent parce que kenn du weddi laa taxlu fi diinikum bu leen waxal yàlla lu dul dëgg isa mi ngeen ne doomi yàlla la déedéet isa doomi maryaama la nit la koo xam ne amul bàyyi yaay rek la am kàddu la gu yàlla sànni ci maryaama yeneen doomu aadama yépp fa leen yàlla di sose day am lu mu jële ci ku góor jaxase kook la muy jële ci ku jigéen ëmb ba daa di commencé amma maryaama kàddug yàlla ga nga xam ne innama amruhu ida arada shay'an an yaqulu lahu kun fa yakun su bëggee dara danan ko amul mu am kaddu kun googi ca la isa commencé sosu ci biiru yaayam gannaaw ba wa ruuxam minhu yàlla yónni jibril alayhi salaam mu ñëw ci maryaama ëf ci baatu mbubbam loolee da ngay gis ne ca la isa nag nekk jëmm ak ruux ca la gannaaw ba juddoo nekk doomu aadama boo xam ne yaay kese la am ngalla way gëm leen yàlla ca gëm ay yonentam naam ca it mbokk mi ngi noonu yéen chrétien yi ne doomi yàlla la waxu leen dëgg bàyyi leen wax jooju waaye yéen yahud yi tamit bu leen wax doomi njaaloo la yonenti yàlla la gëm leen ko gëm leen yàlla gëm ay yonentam ki mujjoon ci yonent yooyu mooy suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn dund la ko yàlla jagleeloon comme ni mu ko jagleele mboole mi mbindaa ko na keroog ba mu faatoo ñu denc ko ca bàmmeelam ba du fa génn lu dul yowmal qiyaama ku la wax ne dellusiwaat ne judduwaat nekk pël naar lébu saraxule bambara nee ko wax jooju say wax la waaye ñun jullit gëmuñu loolu liñ gëm mooy rasul sallallahu alayhi wa sallam yowmal qiyaama lay ànd ak doomu aadama yi dëkk bàyyi leen wax ji ngeen di wax ne yàlla ñett la soo demoon ci christianisme dañ naan li ñu tudde ñoom la trinité nga xam ne mooy seen base u diine mooy ah le père le fils ak le saint esprit mi nga noonu al ab al ibn wa ruhul quds ñu ne mooy loolu mooy yàlla jibril ak ah isa ñoom dañ naan ñetti lañu waaye benn lañu ko defee loolu ñu ne mit la ñetti lañu ne benn lañu ahmed didaat yàlla na ko yàlla yërëm bu daan wax ak ñoom ne leen yéen yéen nga naan diine ngeen benn ngeen yor mit ngeen yor mu ne waaw léegi yéen yéen a ngeen bàyyi doom ba pare ngeen ne ku dox seen diggante di saint esprit muy jibril ana ban làkk ci àdduna bi lañ mën a dem fekk benn ak benn ak benn égal benn fan la am mënta nekk kon kay da ngeen di bokkale ñett yi ngeen di wax laa taqulu salaasa bàyyi leen loolu intahu xayran lakum bàyyi leen moo gën ñeel leen tey tamit ngalawaay ñuy wax ci rajo beeg télévision yi jël aqi yàlla ji di ko jox ay jaamam e waay bàyyi leen moo gën ci yéen su ngeen bàyyi woon yàlla baal leen lépp loo xam ne nii jaaroon ngeen ci yàlla kenn la sell ñeel na ko muy am doom sell ñeel na ko muy am doom mi ngi noonu nee na it su ma bëggoon doom mën naa ko ut leneen waaye yàlla sell ñeel na ko ci loolu ba ñuy wax loolu xëy na am na benn benn waay boo xam ne caamin yi lu ma leen mas a wax yépp bu leen neexoon fayu ko ci moom mi ngi nekkoon fii ci université Dakar mën naa wax rek Sarr la sant ndax xawma tuub naa tuubul waaye daal professeur la woon ba ñu xoolee ci jamono ay quatre-vingt-dix yooyu indi woon na fi fitna ca mooy def benn conférence ci Descartes wax dajj suñu diine xam nga ay philosophe dajj diine ji mu la ñu naan yàlla mën na lépp ba pare ñu ne yàlla amul doom kon koy yàlla mënut am doom ah nangam nangam ba benn xale dóor ko fa ba ñu dàqalu ko fii ci lycée Lamine Gueye almuhim mbokk dañuy gis suñu borom yàlla inna allaha ala kulli shay'in qadir yàlla mën na lépp waaye yàlla daa am lu mu jomb mooy yow man nga génn def yaramu neen ci digg mbedd mi dem sa yoon ndax mënoo ko ah kay mën nga ko waaye nag jomb nga ko ay kon suñu borom subhanahu wa taala jomb na loolu muy benn ca it disposition bi mu def mooy moom dong mooy alxaaliq leneen lu dul moom ay mbindaafanam la an naa yakunu lahu walad walam takun lahu saahiba nan lay mën a amee doom ci utulul boppam ku méngoog moom jalla wa ala kon intahu subhana borom boobu nag ne xam leen ne moo moom lépp loo xam ne mi ngi ci kaw asamaan yi ci malaaka mooy fi sama ay mi ngi doon ci biir asamaan yi wa fil ard it mooy ci kaw suuf lañ koy wax donte ne ci biir suuf lañuy wax waaye ci kaw suuf ah ca doy na yàlla rek ci koo xam ne mooy saytu lu nekk mooy garde lu nekk looloo tax boo bëggee ku la garde nga la way yàlla doy na ab jullit lan lay wax mooy xasbi allahu wa ni'mal wakil yàlla kese doy na ma doy na ko ñuy wakkirloo booy génn sa kër bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla la quwwata illa billah ndax suñu borom yàlla dong la mën a aar nga mucc keneen ku mën a doon mënulaa muccal ci dogalu yàlla wa kafa billahi wakila borom bi delluwaat ci yahud yu bon yooyu ca nasaraan yu bon yooyu nga xam ne ñoom ñoo yëkkati isa ibnu maryam borom bi ni isa day du jombo di bañ a nekk jaamub yàlla ca mooy di yëg ci xolam ne man daal paase naa léegi jaamu yàlla déedéet mbokk jaamu yàlla kenn du ko paase suñu borom nee na ab yeneen tam waabud rabbaka xatta yatiyaka alyaqin jaamul sa borom ba dee dikkal la looloo tax ku la gën a jege yàlla moo la gën a nangu jaamuk yàllaam xar baax yu bari bu ko yàlla di wax ci ay jaamam du indi sax turu yonent waaye turu jaam lay indi mi ngi noonu alhamdulilah allazi nazzala alfurqan ala abdihi sell ñeel ne ki wàcce téere bu màgg bi ci jaamam ba subhanallazi asra bi abdihi ca mooy yàlla keroog ba muy yëkkati a rasul salaa sallam foo xam ne kenn musu faa yegg ca kenn dutu fa yegg gis nga jaam la indi kon isa jombul nekk jaamu yàlla malaaka yi gën a jege yàlla itamit jomb ñu nekk ay jaamu yàlla ca mbokk malaaka yi ay catégorie lañu ci ni leen yàlla binde sunu borom nee na uli ajnihatin masna wa thulaas wa ruba wa yazidu llahu ma yasha suñu borom yàlla yazidu fil xalq ma yasha mooy am ay malaaka yoo xam ne ñaari laaf rek lañu am comme avion am yu am ñett am yu am leneen rasul salaa sallam nee na ki nga xam ne mooy seen kilifa ñoom ñëpp di jibril juróom benn téeméeri laaf la am te bu ko tàllalee day ëmb lépp loo xam ne mooy alfa ufuq penk ba sowwu jalla jibril mi ngi noonu suñu borom nee na nag noonu ñu mel it noonu lañ gën a kawee am na ñu gën a jege borom bi subhanahu wa taala al muqarrabun ñooñu day duñu jomb di jaamu seen borom képp koo xam ne nii yëg nga ci sa biir xol ne yow kat romb nga jaamu yàlla wala nga rëy rëylu feeñal ko nag ci kaw jaami yàlla yi suñu borom nee na ëllëg dana leen dajale ci kanamam mboole seen ca itamit mbokko bari na ay ñu yàlla di nattoo ñu dem ba jomb saxal jaamu yàlla am na ñu ñuy tudde ay kilifa diine yoo xam ne ngir ñu doon conserver loolu ñu am ci xolu nit ñi dañoo war a jafe tëju nit ñi di leen rang mbokk ñu jomb ànd ak nit ñi ca jàkka ja mën na xam ngeen rasul sallallahu alayhi wasallam kenn daaw ko ranga lu waral loolu juróomi yoon par bis dana génn taxaw ci kanam mbooloo toog wax ak ñoom mi ngi noonu julli fajar toog ak ñoom léeg-léeg nit ñi di laaj léeg-léeg nit ñi di wax nangam nangam lépp mu ànd ci ak ñoom loolu moo taxoon ba kenn daw ko ram heure boo ko bëggee gis gis ko mi nga noonu am na nag ay kilifa diine yoo xam ne tey boo demoon ci dëkk ba bëgg leen a làqatu demal toog ca jàkka ji rek mi ngi noonu man nga faa def une semaine doo leen gis loolu nag mbokk musiba la am na ci ñoo xam ne yegg nañ ba aj Makka jomb nañ ko ànd ak nit ñi armal di ñukk ñu teg yooyu déedéet moom kay fa nga nekk rek ngay nekk mel ne yàlla yi japonais yi xam ngeen japonais yi seen buur bi yàlla lañ ko def am na ay temps une fois la daan génn par at nit ñi seen ko pour ñoom gis nañ yàlla bu daal di nëbbuwaat ba beneen yoon gis ngeen ala kulli xaal mbokkoo nañ xam ne jullit dafa war a toroxal toroxlu ci kanamu yàlla di dem ca jàkka ya di dem ca aj ya dem jataayu xam-xam ya lépp lu liggéey lislaam boo ca mënee participer nga participer ca bañ a jombal sa bopp dara rasul sallallahu alayhi wa sallam ke rek ba ñuy ndemee di xare ca ghazwatu ahzab sahaaba yi génn ngiree war a gas dafa génn ak pikkim ak peelam ñu ngi noonu di gas di yenu ay xeer ba pënd taqrib sahaaba yi naan la in qaatna wa nabiyu yaamalu fa zaaka minna amrun muzallalun toroxtaa ngi day mënul passé ci ñun ñu toog gis yonent yàlla bi moom di liggéey gis ngeen loolu kon mbokk muy ak jullit sa jaam ak boroom bu ci am lenn loo cay jomb boroom boobu nag subhanahu wa taala ne képp ku réy réylu ci kaw suuf it baax na bisa ngi ñëw yàlla génne la sa bàmmeel nga mel ne na la sa ndey jure woon yonent bi alei salaam loolu wax yuxcharu naas yawma alqiyaama uffaatan urraatan xurula ñépp gën yonent ku dul yonent yaramu neen tànku neen bopp neen lañ daggoon ci yow ba ngay dugg néegub góor sax da ci saxaat mbir mi jaaxal su ne Aïcha lool mu ne ko ah yéen yàlla góor ak jigéen mu ne ko hey Aïcha tiitaangay keroog gën naa màgg ngay xalaat ndax man kii góor la wala kii jigéen la gis ngeen loolu kon moo tax doomu aadama leen dama ko jég toroxlu ñeel boroomam subhanahu wa taala lépp loo xam ne yëg nga ko def nga ko ci jaamu yàlla keroog nga war a gën a toroxlu sallallahu alayhi wa sallam keroog bu muy ubbi makka di victoire bu rëy dafa sëgg ngir toroxlu yàllaam ba jë bii di waajal laal baatu gilim bi ngir toroxlu sallallahu alayhi wa sallam bi mu jógee makka la mu jëkk a def dem néegu umu xaani tëju fa julli fa juróom-ñetti rakka sante ko borom bi subhanahu wa taala lii mbokk moom mooy wàllu julit yàlla na yàlla boole ñu ca jaamam ya ko wommatul naam
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما barakallahu fiik suñu borom mu ne fa amma alladina amanu wa amilu salihat bu dee ñi nga xam ne nag dañoo gëm te jëf-jëf yu yiw ya fa yuwaffihim ujurahum suñu borom yàlla dana leen matalal seeni pay wa yaziduhum min fadli dollil leen ci ngëneelam wa amma allazina stankafu wastakbaru bu dee ña nga xam ne nag dañoo jomb jombalu rëy rëylu fa yuazibuhum azaban alima dana leen mbugal mbugal moo xam ne mu tar lay doon wala yajiduuna lahum min duni illah ca du ñu am gannaaw yàlla waliyan wala nasira ku leen di féete woo wala ku leen di dimbali yaa ayuha nnaas ay yéen nit ñi qad jaakum burhanu min rabbikum dikkal na leen lay yu leer yu bawoo ci seen boroom wa anzalna ilaykum nuuran mubina wàcce nañ ci yéen it leer goo xam ne nii leer gu bir la mubinan mi ngi jóge ci abana nga xam ne moom dafa leer cay leeral mu ngi noonu ab lamp day leer ba pare di leeral kon alquran yi ngi noonu lu leer la di leeral yoon wa jullit ñi war a jaar fa amma allazina amanu billahi wa'tasamu bi bu dee ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ca moy ci yàlla fa sa yudxiluhum fi rahmatin minhu dana leen tàbbal ci yërmaande bu bawoo ci moom wa fadlin ak ngëneel yu bawoo ca moom wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima dana leen jubalit ci yoon woo xam ne yoon bu jubla mi ngi noonu bokk suñu boroom day wax ci daje bu mag bi nekk suñu kanam nga xam ni bay aadama alayhi salaam dana fa daje ki mujj judd ci kaw suuf ñu daje fa ak jinne yi daje fa ak malaaka yi daje fa ak bàyyuma yi ak lépp luy naaw suñu borom nee na bu keroogee de ñu nga xam ne gëmoon nañu yàlla na yàlla bëggee ñu gëmee ko ko jëfoon jëf yi yiw ya yàlla bëggoon ñu jëfe ko seeni pay danaa leen ko fay ca mbokk mi ngi noonu la ngay am ca àllaaxira suñu borom mi ngi ko tuddee ak pay doonte ne moo la ko xéewalal waaye ndax pay ga la yàllay fay dana doy ci nga tabbi aljanna suñu borom ne déedéet danaa ca dolli samay ngëneel mbokku ajjana dund la goo xam ne amul fu mu yem yow doomu aadama sa dund tey bu doon junni at la ñu ne la boo demee ajjana da nga fay def un million d'années daa di seey ku ne xam ne ne ni junni at munta remplacer un million d'années ana nag ajjana joo xam ni amul fu mu yem du milliard du dix milliards abadan abadan ci yow sa dund gu gàtt gi loolu moo tax nit mënul liggéey aljanna yàlla rek a ci dolli ay ngëneelam sahabatul kiram ne suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam ama ndax yow nag mu ne même man lu dul yàlla dolli ma ci ay ngëneelam mbokk aaya yi lu mu lay jàngal mooy ku sa paas matul doo mën a yóbbaale keneen kon ngëneel ci yàlla rek la ko doomu aadama di war a yaakaar qul inna al fadla bi yadillah yàlla waxul moomam ngëneel def na ci sama loxo la nekk yu'tihi man yasha moo ko jox ko mu soob ngal la waay looy yaakaar ci àdduna yaakaar ko ci yàlla alaaxira gi ñu jëm bu fa yaakaar abu bakar bu fa yaakaar muhammad bu fa yaakaar isa yaakaaral yàlla yàlla nag su ko neexee ay ngëneelam mu jaare la ko ci muhammad mu ñëw ci yow mu ramm la mu jaare la ko ci ibrahim mu ramm la mu jaare la ko ci kenn mu ramm la waaye yow sa xol bii doo ci yaakaar ku dul sa borom jalla waala dana leen dolli ci ay ngëneelam amma nag ñi nga xam ne dañoo jomboona feeñal ak jaamu yàlla rëy rëy lu woon ci bañ a ànd ak julli ni jaamu yàlla borom bi nee na mbëggoor mu tar mi ngi leen di xaar te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sawara yi ngeen miin ci kaw suuf day benn parti kese la ci juróom-ñaar fukki parti ya nekk ca sawara yi yàlla di xaare yéefir yi yàlla yàlla musal ñu ci ñu ngi noonu loolu kon bu yàlla ne tar na métti na yàlla rek moo ko xam amma buñ fa duggee suñ borom nee na duñu am ku leen di féetewoo wala ku leen di dimbali maadaama kay ba ñuy dugg ay yéeféer lañu doonte ne wax naa wax ngeen yàgg ngeen dégg suñu borom mu ne yéen jullit ñi moytu leen ba tàbbi sawara boo xam ne yéeféer yaa tax ñu defar ko mais malheureusement dana am jullit yu sàggar ba tàbbi fa ñooñu it suñu fa desee la soob yàlla lu méngoog seeni bakkaar suñu borom yàlla dana leen féetewoo génne leen dimbali leen tabbalin aljanna amma yéeféer moom du am kenn ko koy xettali yowmal qiyaama suñu borom bàyyi loolu daal di ne ee yéen nit ñi juif chrétien athée kum mën a doon dikkal ne leen lay yu leer yu bawoo seen borom muy burhaan ay preuve yoo xam ne képp ku ko settantal xam ne lii mënul jóge lu dul ci yàlla bokk na ci alquran bii suñu borom ne la in ijtamaati al ins wal jinnu ala an yatu bi misli hada alquran la yatuuna bi mislihi walaw kaana baaduhum li baadin zahira nit ak jinne buñ daje woon mënuñoo indi lu mel ne alquran kon muy lay bu leer buy wone ni lii de ci yàlla jalla wa ala la jóge suñu borom wax ci wax yoo xam ne rawatina ñun ñuy dund jamonoy science xam nañ ne impossible nit kese mënu ko woon a xam bi laboratoire yi xewagul bi centrale d'observation yi xewagul nit ordinaire mënul woon a xam abadan la nga xam ne tey jii moom la alxuraan di junj kon lii burhaan la doonte ne burhaan boobu la suñu borom bëggoon lépp looy wax ci diine it mën a haatu burhaanakum indi leen seen preuve ci loolu bu dul loolu lu neex way wax bu la neexee nga ne biig maag yàlla ñoo bokk fanaan naan ataay bu suba jot waaye rek lan mooy preuve ci loolu mi ngi noonu haatu burhanakum borom bi subhanahu wa taala ne dikkal na leen burhan bu jóge ci kan ci yàlla mi leen moom bind leen di leen rey ka dekkal muy rabbikum suñu borom it mu ne wàcce naa ci yéen leer goo xam ne leer gu biir la di la leeralal nooy war a jaamoo yàlla nooy war a jëflanteeg say waajur nooy war a jëflanteeg ña ngay liggéeyal nooy jëflanteeg dëkkandoo yi nooy jëflanteeg noon yi ay lépp loo xam ne nii da ngay gis ne doomu aadama da koo yeyoo suñu boroom tegtal na ko ci alquran yoon woo xam ne bu ca jaaree du juum inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam mi ngi noonu nuuran mubina baram boobu nag ne ñi nga xam ne ñoom day gëm nañu yàlla ne yàlla yeyoo ñu gëm ko ca mooy bokkaale wuñ ko ak dara gannaaw ba ñu moy ci yàlla ay doyloo yàlla kese dimbali ko yàlla kese ca buñ ne moy xale yi li ñuy xam rek mooy jàpp waaye ngoy ñoom sëriñ Njaay ñi daan dem ci àll bay bay tagatéem bi ñoo xam luy ngoy ngoy mooy nga dem ci foo xam ne nii da nga faa tag téye fa booy bàyyi rek di daanu ci suuf amma jàpp di ma jàpp micro bi su ma su ma bàyyi amul problème mais ngoy moom fooy bàyyi rek di daanu ci suuf moo tax suñu borom nag ngoy leen ci yàlla ndax amuñ ci keneen ku ñu mën a xecc li ku dul yàlla du àdduna du àllaaxira mi ngi noonu ngoy leen ci yàlla wa'tasimu billahi huwa mawlaakum boobu rek la ñu am muy koo xam ne moo ñu mën a dimbali mooy suñu mawla ña nga xam ne ne gëm nañ yàlla ngoy ci yàlla suñu borom yàlla nee na ñii day danaa leen dogal ci yërmaande ba bawoo ci man ak yi ngëneel ca loolu àdduna lay doon ak àllaaxira wallahi mbokk julit te am dund gu tey ci àdduna muy julit bi am ngëm yàlla laajal ñi nga xam ne ñooy jonjoo ci bitim réew ak ci biir réew ci ñépp ñi nga xam ne nii alali àdduna am nañ ko bam na gàññ ci amuñu yàlla mbokk da ngay gis ni dund gu xat la ñuy dund te loolu yàlla ko wax danaa ko dundal dund gu xat ci ku war gannaaw sama téere bi danaa ko dundal dund gu teey man amila salihan min zakarin aw unsa wala huwa mu'min fala nuxiyannahu xayaatan tayiba dund gu teey gu am dal kooku jullit rek moo ko am muy yërmaande ba woo ci yàlla di ngëñal ko ba woo ci yàlla nga xam ne moo koy jagleel ko neex ci ay jaamam suñu borom yàlla nag ne danaa ko jubalit ca yoon boo xam ne mooy yoonu siraatul mustaqim ca ngal la waay soo bëggee sa diina ñoŋ fexeel ba sa pas-pas rafet pas-pas bu bu sellee ci wér rek da ngay gis ne li ci des yàlla dala ko yombalal yàlla na yàlla jubal ñu ila siraatul mustaqim
فاستفتوها قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فهما إثمها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم
barakallahu fiik suñu boroom mu ne yastaftuunaka ñi ngi ñëw di la sàkku ubbeeku ci yow di la laaj qulillahu yuftiikum nel yàlla day moo leen di ubbee ay yàlla moo leen di tontu fil kalaala ci koo xam ne dafa faatu bàyyiwul ñàkk a féete kaw fa mu jógee du bàyyi du maam kenn ña soqi ko ci moom doom sët bàyyiwu ci kenn in imru'un halak bu dee kenn ci nit ñi daa faatu laysa lahu walad amul benn doom walahu uxt waaye am na benn sœur boo xam ne daa bokk ak moom ndey ak bàyyi wala bàyyi kese falaha nisfu ma tarak ku mel noonu dana ko ñeel genn wàllu alal jam bàyyi wa huwa yarisuha comme bokkal ndey ak bàyyi nag di góor wala mu bokkoog moom bàyyi kese moom mooy donn alalam yépp in lam yakun laha walad bu dee soxna sa ba muy dee bàyyi fi doom fa in kaanat asnatayni bu dee ne ñaari jigéen lañu seen frère bi ñu bokkal ndey ak bàyyi wala bàyyi dee fa lahuma sulusaani mimma tarak ñooñu dana leen ñeel deux tiers la waaj a bàyyi ñetti junni la woon ñaar yo kon ñoom ñoo ko moom wa in kaanu ixwatan rijalan wa nisaa su dee ne nag ay góor lañu ak i jigéen seen frère gaañu wala seen sœur gaañu fa li zakari mislu hazil unsayayni nañ jox góor gu nekk cëru ñaari jigéen yubayinu allahu lakum an tadillu yàlla ngi leen di leeralal ngiree ngeen bañ a sànku wallahu bi kulli shay'in alim yàlla bépp mbir ku ko xam la ni ngi noonu mbokk waxoon nañu saar wi ñëw na rawatina di défendre aqu jigéen arab yi nootoon leen ca ñoo tane woon société yu bari bokk na lañ leen gënoon a noote mooy ca wàllu sëy ya ak ca wàllu alal ya alal moom daawuñu leen ci féetale dara suñu boroom ñëw ni ñi ngi lay laaj ci kalaala kalaale bi jàngoon nañ ko ca bopp saar wa mi ngi noonu bu dee ne kenn ci nit ñi la ñuy doon fekk mu nekk kalaala wala huwa axun aw uxt fa li kulli wahidin minhuma sudus loole kalaala bañ jëkkoon a jàng mooy benn waaye ngi nii faatu na moom kat ci ñim jóge du baayam du baayu baayam kenn koo xam ni ak ay frère baayam ñoo xam ni dañ naan ñii kat kenn ku ciy dund la waaye bu ñu xoolee tamit ci ñum jóge ca ñi nga xamee ne nii ñoo jóge ci moom ñooñu dañuy gis ne doom yaag sët bàyyiwul kenn moom daal mi ngi nii judd na moom daal faatu na góor la wala jigéen ay frère rek sës ci moom wala ay sœur su boobaa bu dee ne am na ñum bokkal ndey kese ñooñu la yàlla wax ni alal ji nañ ko xaaj juróom benni xaaj bàyyi woon na six millions bàyyi benn sœur wala benn frère nañ jox frère bi un million bu dee sœur it ñoo ko jox un million foofu moom góor ak jigéen ñoo fa yem képp koo xam ni da ngaa bokk ak moom ndey kese ci amul kenn ku ko donn ku dul yéen góor ak jigéen ñoo yem foofu su dee ne ñaar ngeen kenn ku góor ak ku jigéen ku nekk dañ koy jox ah un sixième ca mooy comme ni ma la ko waxee bàyyi woon na six mille ku góor ki mille ku jigéen ki mille amul iskal foofu léegi nag ñoom bu dee dañoo ëpp loolu masalan bi muy faatu góor la wala jigéen bàyyi na ay doomi ndey yoo xam ni ñett lañu juróom téeméer maadaama mat nañu ñett rek su boobaa léegi séddoo la ñuy def ciru ñaar ña la ñuy jël séddale ko ñépp léegi loolu kon alal ja lañ cey jël mooy un tiers kese mu des la ca des kaa bi yàlla wax nag bokkul ak bee kii moom waa ji bi mu deeyee daa bàyyi frère yoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay wala sœur yu mu bokkal ndey ak baay suñu boroom jëkkee ci ki nga xam ne nii dafa faatu amul benn doom kaw suuf daal ñi ko fi jege di ko doon benn sœur la am su boobaa suñu boroom ne genn walla alal gi jël leen ko jox ko ko genn walla alal ji jël leen ko jox ko ko léegi mu des bu dee ne ñoom sœur bi moo dee bàyyiwu lu dul benn frère boo xam ne moom moom a bokk ndey ak baay wala ñu bokk benn baay suñu borom ne alal ji yépp nañ ko jox frère bi alal yépp lay jël te foofu ñu gis doomu baay it ni ko yàlla di privilégié ci wàllu alal ngir noonoo bañ a am ci doomu aadama yi mu ngi noonu amma bu dee ne suñu borom yàlla dogal na ku góor kii bi muy faatu dafa fee bàyyi moom ñaari sœur bu doon kenn dañ naan gennoo la alal ji la moom léegi nag ñaar lañu ñett lañu diis lañu luy pexe suñu borom ne nañ jël alal ji def ko ñetti xaaj jël ñaari xaaj yi jagleel ko jigéen ñi mu ngi noonu bu dee ne nag waa ji bi muy faatu dafa bàyyi frère ak sœur na doon ñoom ñaar kese lañu wala ñaar fukk lañu su boobaa suñu borom ni nañ jël benn ciru jigéen waxoon nañu bañ koy wax ci ba postaar ba suñu borom waxul góor ah na waxul nañ jël jigéen jox ko genn wàllu cëru góor waaye def ne nañ jël góor jox ko ñaari cëru jigéen pour feeñal ne jigéen day am cër bu rëy ci miraas bi kon nañ jël ñaari cëru jigéen jox ko benn góor loolee da ngay gis moom la suñu borom wax ci wàllu kalaala boobee nga xam ne moom ñii dafa bokk ak ñoom ndey ak baay wala mu bokk ak ñoom baay kese kalaala bu njëkk ba mooy ñam bokkal ndey kese lii may wax nag tafsir bi mu ci yow waaye xam naa ne ñu bëri ñu ngi naan ci day lii ba clip yi ndax c'est très compliqué waaye alhamdulilah problème miraas mbir la moo xam ne nit ki mën a dund ba xëy dee sax du am problème mu miraas ñu ngi noonu wala boo ko amee it niñ ko fi waxee woon rek incha allah su dee ne dëkk ba am na kenn ku ko xam ba mën ko leeral nit ñi doy na donte ne ni balaa duna tukki xam-xam bi day réer ah njëm ba xam-xamu miraas réer loolu mi ngi noonu. donte ne ni doomu aadama bi xamal ne sa alalu baay day da ngaa war sa alalu baay sa alalu frère ngal la way bu leen ko séddoo dem leen ci borom xam-xam mu ne leen nii la ko yàlla tërale nii la ko yàlla tërale su borom xam-xam bi tëralee ba pare ba ku nekk xam cëram comme neex nag maye sa wàll comme la neex loolu nañ ci bàyyi xel bu baax léeg-léeg ay njuumte di am ñu jàpp ne suñ demoon tribunal tribunal atteel ñu régleel ñu ko d'accord nañ ci baax na loolu baaxul mbokk jullit loolu mooy atte woo ji ci ay taaxuut yàlla moom moo atte nañ dem ci atte bi yàlla ba yàlla détaillé ñu ba ñu xam ku nekk ne lii day mooy cir bi maa ko moom nga xam ne bu faatu woon tey ay doomam loolu la ñu doon su boobaa nag bu ku nekk jëlee la nga war a jël kum neex mayal kum neex sax may keneen ko bokk ci miraas bi loolu mbokk mooy la nga xam ne mooy lu jub suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala ne yàlla mi ngi leen di leeralal ngir ngeen bañ a doon ñoo xam ne ñuy réer lañu loolu suñu borom yàlla bépp mbir mooy ka nga xamee ne nii moo ko xam ci ni ma la waxe it bul doyloo tafsir bi kese ndax yiit yu bari da ci laqu ndax kalaale bi mën na bàyyi jëkkër kalaale bi mën na bàyyi jabar te yooyu it ay complication yu bari moo nekk ci gannaaw loolu looloo tax ba heure boo amee problème miraas demal ci borom xam-xam boo yaakaar toog ak moom expliquer ko bu ko defee moom dana la laaj laaj yu bari lu aju ci mbokk gi nan la tëddee dooga mën a jël décision mbokk li mooy saar bu màgg boobu di suratu nisaa waxoon nañ bañ koy dal ni mooy saar bi gën a gudd ci téere bi yàlla bi gannaaw suratul baqara suñu borom yàlla dogal nañu ñu commencé ko ba jeexal ko yal na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko lépp loo xam ne ay atte la yal na yàlla xamal ñu ko wërsëgal ñu taxaw ca ca yàlla subhanahu wa taala wàcce jàmm ci suñuy jigéen ak suñuy góor wàcce ko ci sëy yi ak njabootu lislaam yépp incha allah ñu jël suratul maida bu ca dee dagal nañu lekk ko noonu dagan nañu lekk ko loolu ndax tey li ñuy wax hippopotame yooyu ca la ñu bokk hippopotame xëy nañu ko xam-xam nañ ko ala kulli xaal mbokk dafa am yoo xam ne nii dafay dund ci biir ndox mooy moom ndox rek moom mooy place dundam yooyu mooy jël atteb géej moom la yonente bi alei salaam naan xillul may tutu may tatu mooy li ëpp moom ma ngay sax ca géej ga ca géej ga yëpp dañ cay boole la nga xam ne mooy dex ga amma la nga xam ne nii mooy day dund ci géej di dund ci jiir yi lu mel noone da ngay gis ne la ëpp ci borom xam-xam yi boole wuñ ko ci loolu lu mel noonu moom fokk dañ koy rey rey googu dañ koy rendi rendi googu mooy tax mu doon loo xam ne lii mu dagan la allahumma lu dul dund ga muy dund ci jiiri léeg-léeg rek la day génn rek ci jiiri ji di delluwaat waaye dundam moom lu ëpp ca géej ga lay nekk su boobaa it bu ca dee day jël acte boobee mais daal loo xam ne ni mën na def ci géej gi weer mën na génn def ci biti weer ak yu demee noonu loolee moom du jël acte luy dund géej ni ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam amma bu dee till ndax am na ñoo xam ne dañuy lekk la nga xam ne till till loolee dafa bokk ci ay faddkat am ay sell loolee da ngay gis ni rasul sallallahu alayhi wasallam dafa doon tere lépp loo xam ne dafa am ay sell cay fadd till yooyu moo xaj benn rek la ixtilaaf yi borom xam-xam yi am mooy bukki doonte ne ni ab sénégalais dana ko jaaxal waaye nag la gën a wér ci texte yi sax mooy bukki moom dagan na waaye suñ jàmm boo ko toggee rek bañ maa invité waaye ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne bukki moom amul ay sell moom day fekk lu ñu rey mu ñëw tiim ko di lekk mais bokkul ak till wallahu aalam naam masiw mooy benn liquide la boo xam ne nit ki buy xalaat ci wàllu jigéen wala wàllu góor mu liquide bu sew buy génn doo yëg sax ndax génn na am ma mëni yu bànneex bu mat moo koy génne nga xam ne buy génn day mel ni luy tëb nga koy yëg ca mooy gën a dëgër liquide bu doon lu dëgër mel ni ay xaax si nduku loolu la ñuy tuddee mëni yu loolu moom bu la dikkalee da ngay sangu amma mas yu bële lu mu bari bari bari mooy ndax ba sew boobu di génn nga xam ne sax doo yëg ah loolu moom da ngay raxas sa tuba yi nga daal di jàppi mi ngi noonu bokk na it nga raxas sa awra yépp ba mat sëkk loolu la ca borom xam-xam yi di wax wallahu subhanahu wa taala alam lu mu wax wadiyu ah wadiyu moo bu dee wadiyu moom loolu lu ci bëri mag ñi lay dikkal ci bëri mag ñi âgé lay dikkal léeg-léeg mën nañ tuur ndox ba pare benn liquide la boo xam ne dafa xaw a jéng jëm ci jaune loole yi tamit moom moom mesure presque ñoo yem day génn noonu fekk du benn bànneex moo koy génne lu jege ci wàllu sëy kooku atte mesure rek la yor mooy dañ koy raxas jàppal ko la ñuy sangul daal muy mëniyu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah la nga xamee ne mooy soccu mu am yoo xam ne dafa rëcc dugg loolee la gën a wér ci borom xam-xam yi mooy nekkul lu yàq koor suñu yonent alayhi salaam moo ñu digal ñu socc te la chaque ne kuy socc fokk dina am luy jóge ci socc ba ci caf ka wala lu deme noonu maadaama dal ci socc bi kese kese kese nga yem tayuloo ko boo ko tayee moom day yàq sa koor mais bu dee tayuloo ko ya nga xam ne ay décites yi socc la yuy dem nga duggaale sa biir put loole da ngay gis ne nekkul loo xam ne nii lu yàq sa koor la li ngi mel ne rek waa ji gëllax ndiku di jàpp di gëllax ndiku la chaque ni amoo certitude ne ndox mi dugg sa làmmiñ lépp lépp lépp génne nga ko ndax kon foo gëllax ndiko par wala dafa ne xaar tudd ko tax ba mais loolu islam tegu loolu donc desit yooyu nga xam ne dafa des ci gémmiñ gi loolee boo ko wan ne it jubluwoo ci war na ndox su boobaa islam baal na la ko wallahu subhanahu wa taala alam waaw bismillah naam waaw waaw bisimilah après ñu mujjee ci mbokk ba rek bisimilah waaleykum salaam. théâtre yi ñuy seetaan ci weeru koor bi rawatina ñuy def ci wàllu ndog yi loolee mbokk nañu ngi xam ne base théâtre bépp théâtre bu jaxasoo góor ak jigéen nekk daganul ay jurit di ko seetaan. bépp théâtre bu ay jigéen génne seen awra di def daganul jullit di ko seetaan bépp théâtre boo xam ne la muy jàngale du jukko yu rafet daganul jullit di ko seetaan mu bokk nag la gën a bon gën a bon théâtre yi nga xam ne ay may la ca may yu bëri mi ngi aju ci wàllu diine ji loolee moom dafa nekkati lu gën a grave ala kulli xaal waxtu ndogu waxtu jaamu yàlla la dellu ci yàlla du waxtu toog di seetaan ay théâtre wallahu aalam ñu mujj ci mbokk bi doon tànnal fii bismillah waaw waaw socc ak ak lan ak sopp lan ah ndax ndax ndax socc sopp nañ ko ci bëccëgu weeru koor am na ay boroomi xam-xam yu naan buñ demee ba zawal passé sopp ñu ñuy socc ñoom fañ ko teg mooy la yeneen bi alayhi salaatu wasalaam di wax ni la xalafu fammi saim atyabu inda allah min riihil misk nit ki bu wooree ba ngoon ba gémmiñam soppiku loolu moo dàqal yàlla xetu misk ñenn ci ñoom naan bu zawaale duñu socc waaye la gën a dëgër borom xam-xam yi ni socc sopp nañ ko ci bëccëg yépp rasul sallallahu alayhi wasallam moo ne woon su ma bañul woon sunal sama xeet danaa leen digal fu ñuy jullee ñu socc te waxul lu dul bu ñu wooree ndax boo xoolee ba muy wax booy sarax ndi ko ca njàpp dane na nga matal sarax ndiko bi lu dul fekk da ngaa woor amma socc waxuti lu dul da ngaa woor kon ki socc moom journée bi yëpp mën na ko socc mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain